ah di am yaakaar nga xëy ne danañ leen gis waaye di jaale ñi nga xam ne jot nañoo gis ñoom seeni koor def naa ma nga toll ci 39 di massawu seeni wayjur ah di wax nag suñu jeunes yi nga xam ne ñoo ne bii senegal ne ñoom seen destin du dem di dee ci géej gi déedéet muy ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ba ci ñun ñi nga xam ne ñoo leen jur doon seen yaay li mu am ci ñoom ci yaakaar mooy ñu des fii ak ñun senegal ñu ànd liggéey senegal surtout bu fekkee ne yàlla wàcce na fi ay xéewal yu mel ni pétrole ak gaz tey la yaakaar war a gën a sax ci sunu jeunesse bi ñu wax ak aussi wayjur yi ak sama mbokk jigéen ñi tiire tontine di ko jox sa doom pour mu dem géej loolu war naa jeex war naa dakk borom kër bu jaay terrain pour sa doom dem géej loolu it war naa dakk li nga xam ne mooy responsabilité bi te ñu bokk ko ñun ñëpp mooy jox courage suñu jeunesse bi jox leen optimisme ba nga xam ne bii li taxoon ñoom ñëpp ñu mobiliser wu le 24 mars ba fal président Bassirou Diomaye Faye yaakaar ci nguur gi changement dinañu toog fii ci réew mi ànd ak ñun liggéey ba nga xam ne bii métit bi nga xam ne gis nañ ko ci fan yii ca mbuur dootul amati ah li nga xam ne nag moo tax tey ma organiser point de presse bi mooy surtout pour waxtaan ak sunu mbokki Sénégal yi sunu mbokk Sénégal yi ci li nga xam ne bii sunu gouvernement bi jël na ko ci ay décision président Bassirou Diomaye Faye jël ko te nag ñuy dégg ci opposition bu bees bi ay manipulation yoo xam ne yii bëgg nañoo lëndëmal xelu senegal yi te loolu kenn mënu koo nangu te liñ ci xam nag mooy président Macky Sall Macky Sall ma nga xam ne moo ne xaw ma sax fan la nekk euh, moom mooy li tubaab naan tirer les ficelles maanaam moo leen di jëfloo donte ba muy tukki yëngal loxo ca avion ba le Sénat loolu wax yi nga xam ne dégg nañu ko loolu duñu ko duñu ko bàyyi ndax lañu cay wut ñoom mooy jéem a nax sénégalais yi waaye kuy jéem a nax sénégalais yi sa bopp rek ngay nax ndax peuple peuple bu mature lañu peuple bu mën a xàmmee liy yoon ak li nga xam ne moom ay manipulation la damay d'abord féliciter président Bassirou Diomaye Faye ci li nga xam ne def na ko tubaab tuddee ko œuvre de salubrité publique maanaam sant ko ci li nga xam ne tase na assemblée nationale bi nga xam ne naqaru ñëpp la woon ndax assemblée bi moom mën nañ toog fii di ko wax ba suba l'assemblée du déshonneur ndax gis nañ dafa xewoon ay xaxaraki xasteeki wax ju ñaaw lu ne gis nañ ko metti la nag xaste yi ak wax yu ñaaw yi jigéen ñi lañ ko sasoon kooku du ma mette mettee metti la melunu ni lañu gis assemblée nationale mukk ndax bu ñu yeewoo suba ba ngoon ñu ngi fas seen sër yi di def jom ci kër yi di yar xale yi tey boo xoolee ci njàng mi muy sixième ba terminal li ci ëpp ay jigéen ñooy réussir sixième nag ba terminal ba boo demee université faculté de médecine bu ñuy joxe diplôme jigéen ñi duñ des ginnaaw bu yàggul rek dégg ngeen ñu ne concours tari alxuraan ca Maroc benn jigéen a ca ne woon mu jël deuxième sénégalaise la kon jigéen ñi ay jàmbaar lañu macha allah. président Macky Sall nag moom gisut loolu la mu jël mooy tànn ay saagakat yu jigéen xaxarkat yu jigéen tegal ñu leen assemblée nationale pendant deux ans ku ubbi rajo bi dégg leen rek wala télé bi bëgg a fay kon loolu man personnellement lu ma lu ma naqari la ci suma gis-gis man masuma jàpp ne premier ministre Ousmane Sonko war naa dem assemblée nationale fokk mosuma ko jàpp te wax naa ko ba tey d'abord amuloon obligation pour dem assemblée nationale man maa wutu woon Abdou Mbaye comme premier ministre Abdou Mbaye ba ñu voté assemblée bu bees ca la dem présenté déclaration de politique générale te loolay dëgg nag ndax député bu ci ne ñoom ñii di wax na ngeen dem xool résultat yam am ca bureau de vote ku ci ne dañ laa door ba nga nërmeelu ca sa bureau de jël rajo bi wax ne du am président groupe parlementaire bi kan la du Abdou Mbow Abdou Mbow waxal say résultat yow ca bureau de vote ba nga xam ne fa nga ne woon ñooñu la du moom kenn nag ñoom ñëpp kon président premier ministre amul pour dem di présenter déclaration de politique générale boo xam ne yoon imposé wu ko ko ci assemblée nationale boo xam ne xam nañ ne ñëpp ay dem ndax sénégalais yi dóor nañ leen ca seeni bureau de vote le 24 mars loolu rek war naa waaye la war a tax pour man du leen parce que loo yoon imposé wu ko kon foofu amul fenn fu mu jalgatee yoon bu mu ne daw ma te foofu la ko waroon na commencé ne daw ma changé leen bi euh, règlement intérieur parce que looloo waroon a am ndax ndaxte dañu jalgati woon règlement intérieur waaye lu ngeen mën a def it damay xaar ba seeni morom yoo xam ne dañ leen euh, fal ci anam yu set wecc bu boobaa bu ñoo def présentation de politique générale pour man looloo doon sama position te looloo war a am te nar a am waaye assemblée nationale boo xam ne dafa jalgati yoon ci deux ans yi def ci yoo xam ne yi ba ma cay njëkkee mooy report des élections dañoo toog wote Sénégalais yi génn manifestation ñeenti doomu aadama de ñoom am nañ ci responsabilité morale loolu it war naa tax kenn du dem di janook ñoom premier ministre du dem di janoog ñoom ñoom di def déclaration de politique générale groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñoom ma xam leen bu baax a baax mais ñoo fi nekkoon di troisième mandat ba ñu indi fi front euh, F24 ba am ay manifestation ñoom ñoo majoritaire foofu ñooñu mérité wuñu premier ministre di dem di présenter sa déclaration de politique générale ba topp nag ay nuyu Boubacar Seye mi toog sama ginnaaw doon président association des victimes de la répression ñu wote fa na loi boo xam ne bii nag mooy la loi d'amnistie pour ñu noppi ci ñi nga xam ne ñoo boom suñuy doom ñetti raison yooyu war naa mën a tax président euh, euh, ba nga xam ne président lu Diomaye Faye war a tas assemblée tasak waaye nag bopp di def déclaration de politique générale loolu pour man lu leer a leer a leer la man dama jàpp ne man personnellement dama jàpp ne assemblée buñ bu ñu amee assemblée bu bees li ñu war a def mooy loi d'amnistie bi ñu dal di ko supprimer abroger bu ko defee ñi nga xam ne ñii ñoo rey boom torturé tëj ñu ñëw toog faire face à